amul kenn ku mën a jëlee Barthélemy Dias ci mairie de Dakar lu dul ñu dem élection population yi ko tegal foofu ñu jël choix teg fa keneen amul beneen solution bu dul boobu lu dul jaay doole te jaay doole nag amul njëriñ ndax d'abord kenn du ko nangu te amul mucc tey sooy xool loi bi lu mu wax c'est clair dañoo sonn sax ci wax ay loi bi nee na parce que ñi fi nekkoon di jaay doole yépp dañu naan ci loi lañ ko teg su ko defee ñu jël seeni nit yóbbu leen ci plateau yi kii naan juriste la kii naan lële la kii naan lële la mais la loi est très claire article boobu ñu visé muy article 277 bi article boobu waxu conseil municipal lay wax boo xamante ne dafa nekk ci cas d'inéligibilité wala mu nekk ci cas d'incompatibilité d'abord nan ngay waxee koo xamante ne dafa jógee élection ñu sol ko fal fal nga wax ne ci cas d'inéligibilité la nekk te mu jàll ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel bàyyi ko mu nekk candidat ba ñu fal ko mu nekk député su dee une autorité administrative moom moo war a mën a taxaw tey ne am na cas d'inéligibilité te la justice si boppam bàyyi ko moom mu nekk candidat d'abord kooku c'est un grand problème mais soo ñëwee si article si boppam dañu war a xam ne ne Barthélémy Diaz est un maire soo demee si article 297 bu nekk si code électoral dafa ne candidat bi nga xamante ne ne dafa nekk tête de liste bu ëppalee ay sièges candidat bobu day nekk maire donc on est dans le suffrage direct sénégalais yi dañ lay fal directement parce que da ngaa nekk tête de liste donc tay mënoo lier lu mu nekk maire ak statut conseil municipal mënoo ko lier donc sa yëfu caaxaan yooyu ngeen di def nga xamante ne da ngeen vise ay conseil municipal pour que après dégg wëlbati naan waaw comme conseiller maire la kërëb kërëb amul njëriñ amul sens parce qu'un maire qui est élu au suffrage universel direct mënul rendre compte lu aux populations Ce qui nekk di def du lenn lu utiliser les moyens de l'État pour s'attaquer à un adversaire politique C'est ce que nous nañ ne loolu weesu nañ ko tey su doon rek dañoo tëddee njaxanaay su doon rek dañ nekk ci jub ak jubal ak jubbanti ba ministre de de de la justice di bind lettre pour ne nañu jële les médias ci assemblée nationale jour boobu la waron bind lettre pour aussi ñu radier Ousmane Sonko parce que la loi bi wax de rek la règle, beuf bo une condamnation définitive une condamnation définitive Nous Ousmane nous ko Barthélémy Dias non, noonu Ousmane Sonko Nous avons ney wax naan ay non amnistie dañ ko amnistie sen du ministre de la justice qui interpréter la loi justice moy interpréter la loi mais du le ministre de la justice il faut différencier les deux tey soo demee si loi boobu muy loi d'amnistie soo demee si article 4 bi dafa ne conflit pour xam ndax amnistie bokk naag bokkul loolu chambre d'accusation bu cour d'appel bu Dakar moom moo koy atte donc moom lu mu waroon def mooy bind comme nu mu bindee si Barthélémy Dias bindee ko si Ousmane Sonko su dee Bart Ousmane Sonko dafa jàpp na ne ne amnistie moom daf ko concerné dafay dem saisir la chambre d'accusation bu cour d'appel bu Dakar kooku mooy wax ndax amnistie bi jël na loolu en compte wala jëlu ko en compte

Nous pouvons compter sur pour régler les comptes politiques pour faire que ñenn gens qui ne mën nañ leen le suba ñu jël leen de leen population C'est jox